maaleykum waaw sëñ bi bu doon laaj ci wàllu ulcère ulcère nag mooy góom waxoon nañ ko mooy góom xoos xoos yi di nekk ci butit yi wala ci mbàq mi mën na nekk ci butit wala ci mbàq mi wala sax ci biti góom yu xeeti góom yooyu nga xam ne day naqaree wér nekkee ci biir bi mbaq mi fii yëpp lekk gi noonu loolu la ñuy wax mën na ñëw sax ba ci euh, kaw ci ci raakool ci put gi dale ci put gi sofe ci raakool boobu jëm ca mbàq ma yooyu yëpp mën na def ay góom mën na génn ca mbaq ma it dem ci biir bi ba ca colon ba yooyu yëpp mën na ceene su nekkee ci biir bi ci butit yi moom dañuy wax ni nga koy xàmmi léegi soo xiifee day métti noonu xam ne saa yu xiifee di gis ñu métti loolu moom mën nga waxam loolu ulcère nga xam ne soo lekkee lay métti nag loolu mooy ci estomac bi noonu wala nga xam ne fi ngay lekkee nga xam ne ci yoon wi lay ne sa dënd bi tàng jër noonu loolu kon ci yoon wi lay nekk noonu su ko defee màndarga yi nag bëri na day tegtale lool biir buy métti ci la bokk wala muy jam noonu surtout nga yëg muy jam ci digg ci gannaaw gi noonu te gu léegi muy métti ci kanam ba mu yaa ngi gis jam ci gannaaw noonu dana koy def wala sax muy wàccu yomba waccu lool wala waccu mi sax di ànd ak ay deret wala ñàkk appétit nga xam ne du bëgg lekk dara ba ci biir yi solo ngelaw noonu sax ba tey mandarga la wala sax muy jeex gis naa day jeex rek wala muy tëfli tëflit yoo xam ne léegoo léeg di nga xaax yooyu xam ne léegi day ànd ak deret noonu wala mooy dem àll dem joor yu ñuul kok te boole ko kii lool xëñ lool loolu it na ko def ay mandargam yooyu yëpp ay mandargam la ak yeneen ak yeneen yeneen waaye yii mu bokk na ci yi nga xam ne moo gën a siiw ci wet yooyu su ko defee li koy sabab it dafa na lool waaye daanaka yu ni tuumaaloon nañ ko nag na daal am na xeetu microbe boo xam ne moom tudd nañ ni yi koy joxe ci la bokk moo xam nit ki mën na koo lekkaale wala mën na naale ko wala yu mel noonu bokk na ci it ñi maq di muy noonu mën na yóbbu loolu mën naa def ci seen mbàq gi loo xam ne dana tax lim loon dox dootul dox ba ndox moom nga xam ne moo ko daa tooyal manqué mu commencé am jafe-jafe xoos-xoos yooyu ba ñi nga xam ne dañuy naan aw ñoll lu ñuy tere noonu alcool yooyu yu bari yooyu mën na koy def ba ci it da gis ko xam ne sax la ko yóbbee mooy lii naan yi calme nii doom yooyu di seral rek nga xam ne fu mu jógee moom naan lu ko métti rek lu yaram tàng sax mu dem naan loolu doom yu bari yooyu nag mën a dem ba yóbbeeku ko wala sax mu famille mën na nekk dokk ci famille boo xam ne loolu da leen di yëpp lool waaw loolu am na am na ñu mooy dal léegoo léegi mu jafe-jafe wàllu biir mën na koy yóbbee nit ki comme lekk mu ñàkk rees ak yu mel noonu xeeti seere seere yi dem ba mu yàgg mu jur loolu loolu mën na koy def ndax mu tax seere yu yàgg yi baaxul mën na dem ba acide yooyu dajaloo wala yi nekk ci déchets yi te du génn commencé lakk kii ba butit yi bañ commencé def góob noonu loolu dem wala sax jafe-jafe ci wàllu ni muy dundee di wàllu dundu waaw tund goo xam ne daal ay bopp yu ubbi yeeg yu mel noonu stress ak façon yooyu ndax yooyu su amee it ñi yaramam doon doxee dootu ko doxee jafe-jafe ci wàllu lekk mu rees it da koy am te yooyu su amee rek yaa ngi gaaral sa bopp ci wet googu wala sax ni mooy lekk li mooy lekk mu dëppoo ak lekk yi dëppoo ak wér-gu-yaram lekk yoo xam ne comme setul dégg nga yooyu it mën na koy def wala sax lekk ni mooy lekke moo jaaro yoon lekk reesul mu dem di lekkat tegale ay lekk waaw wala comme ni ñuy def ni ñun lekk léegi lekk fruit waaw lekk rek teg sedd naan yu mel noonu yooyu yëpp mën na jur xeeti góom yooyu ulcère yooyu wala lekk yu forox lool surtout nag xiif di ko lekk lekk yu forox yooyu ak ko loolu mën a mujj def loolu wala ataaya bii ñu naan fonk ko lool di ko naan wala kafe te fekk yaa ngi xiif lu mën na ne naan kafe te sa biir bi dara nekku ci wala nga naan ataaya sa biir bi dara nekku ci surtout nag ñu ngi koy def tàngal ko mu tàng jëriñ yooyu it tuumaal nañ ne mën na koo def wala sax naan yi di am gaz nii gaz bu bari boobu ñuy naan rek ba ci yenn doom yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo te muy fuur baax noonu te di jëfandikoo lu bari kon yii yëpp mën na yóbbee ki góom daal tuumaal nañ ne mën na ko mën na koo sabab ak yeneen sax xëy na yii da ciy gën a soo defee nag comme dalit ñu am yum lay koy faju it te mooy meew gis nga meew mii lu may baax baax subaa na koy xaw na koy yemale suñu ñenn ñi sax loolu la suñ kiyee seen dënn yi làkk nu ñu dem naan meew noonu loolu mën nga koy def mu sedd waaye du tax ma wér da koy yokk rek parce que day dundal microbe yooyu nga xam ne tey ñoo nekk ci góom yooyu loolu meew moom mu di ko jëfandikoo da koy yokk rek ko wàññi moytu lu yem yàpp duufit graisse gu bëri giit na koy moytu caféine loo xam ne dafa am caféine na koy moytu moo xam guro la wala ataaya ak yu mel noonu ba baax na sax waaye day métti dafay ndax yooyu yëpp kon su fekkee léegi yor na ko it na moytu loolu su ko defee nag yi koy faj it na xam naa dañ ci joxe tegtal yu bëri ndax moom it lu sonal la foo toll moom la nit ñuy jàmbat ulcère estomac ulcère estomac rek yi koy faj moom bëri na yu bëree bëri tegtal yoo xam ne daan nañ mën ci danañ ngi faj bokk na ci jinjar bi ñuy gis gis jinjar bi toujours ngay def njaroon jinjar zi jinjar di ko suukaree lem di ko naan baax na ci lool waaw même nepp nepp bi nga am su kuddu nepp nepp kuddu sungu fi baxal ko ci kaasu ndox bam wax nga segg bam set boole koog lem waaw kudd sa ngay lekk lu jiitu fukki minute wala trente minutes nga naan ko door ko lekk wala nga lekk toog diir naan ko jël ci kudd saa yoo lekk jël ci kudd su jeexee nga defaat ko loolu soo ko saxoo yàlla mën naa def tawfiq ba loolay euh, góom yooyu yëpp wér même banaana bii ñu doon waxee baax na ci lool gis nga sax ki am ulcère lekk soow soow sax moo gën ci moom meew parce que soow am na ferñeent yoo xam ne day day saafara góom yooyu kon ñooy jox ne ko soow moo xam ne bariwul diw noonu surtout ne mu boole ko banaana jël benn banaana ni ñu léegi bate ko ci kaas soow ko naan fekk wewel du lekk dara maanaam xëy suba def ko loolu ci baax la ci xeeti ngóom yooyu da koy faj nga kaane mi it ñu di si son ñu bëri sax foogoo nañ ne wax nañ ne kaane da koy def waaye loolu it wérut ndax kaani am na ferñeent yoo xam ne wax nañ ne sax lu baax la ci góomi ulcère yooyu même ku koy jëfandikoo sax mu yem nag waaye nag mu yem lañ wax su bari moom li may wax nag saafara moom luñ la wax ne day saafara su ëppee rek def jàngoro ji indi jàngoro jooju waaw lépp luy faj su ëppee rek jàngoro yooyu muy faj moom lay mujjee indi xëy na kaane buñ koy tuumal bu njëkk xëy na jëfandikoo bu bari waaye kaane bu yem ni sax nee nañ ko koy jëfandikoo yenn xeeti góom yu yëpp doo ko am ndax am na fa ñeent bu ci ne boo xam ne day day aar xeeti microbe yu yëpp te da koy saafara kon boole ko ci li ngay lekk di ko tucc tuccal ndànk wax am na ñoo xam ne dañ leen jik am na ñoo xam ne duñ leen jik nag suñ ko jëfandikoo moom pour ça moom mel ni jaanama lañ dugg waaye am na ñoo xam ne mën nañ koy jëfandikoo seen ulcère du ko bañ loolu day am ulcère yi day loolu da ciy da ngay gis koo xam ne ulcère am du bañ yi nga gis koo lu bañ rek na ko ba am na ñoo xam ne kaane bañuñ ko seen seen seen ulcère bañ mën nañ koy jëfandikoo te duñ duñ ci yëg dara waaye soo yemee baax na ci loolu bokk na ci ba tey koy fajit grenade grenade waxoon nañ ko xooleetu grenade yi nga def ko sunguf boole ko lem di ko jël par kudd kudd bu ndaw waaw ñetti yoon saa yu lekkee jël kudd bu ndaw loolu moom baax na ci loolu nee na ko saxoo diir moom da ndax yàgg na mag ñi daan ko fajee lu mel noonu ba bokk na ci ñu ko daan fajee xasum géges ak xobi daxaar xasum géges xasum Govis ak xasum Dakar ñaari xas yi ngay boole baxal ko yow ñor nga seet ko yow seddi ko naan par kaas saa yoo lekk naan ci kaas moom itam soo ko saxoo nga parce que góom yooyu ni mooy tooyee noonu la ci da nga ni géeges boobu xas mu di woowee di kotom lay def góom yooyu it baax na ci loolu garab yi ñu wax soon mais xas mi moom di ko baxal di ko naan du koy faj moom xeeti surtout yi nga xam ne day laal ci poñ bi ba ci dënn bi ñuy laal ci dënn ti la raakool boobu buti boobu jëm jaar ci jógee ci raakool roox gi jëm ci mbàq mi yi laal foofu yëpp bu koy jëfandikoo moom son boobu da koy faj xeeti góomi biir yëpp baax ci lool garab boobu mag ñi daan xeeti biir yi nga mag ñi biir rek lañ naan tawati biir léegi lañ koy détaillé de leeral naan lii ak laa ak léeg yooyu yëpp mag ñoom biir rek wax waaye soom bi moom xeeti góomi biir yooyu yu ci bari yëpp mën na koy faj ba tey bari mooy ngéndil la boobu ñu moom it ren bi su tamee wala xas bi mën xooj ko di ko naan mag ñi lañ koy fayee lu bare bare bari bari nit ñu bare bari di jàmbat xeeti biir yooyu di métti te fekk góom yooyu koy def su amee dori boobu ren yi xooj ko di ko naan wala xas mi yëpp baax na ci loolu ba ci guy xasu guy mi xaañ ci guy mi xasu guy mi boo ko boolee moom itam xasu guy gi moom itam boole ko baxal ko ñor wala nga def ko sunguf di tàngal ndox di ko ci def di ko naan waaw wala sax def ko sunguf ba mu nooy su ko defee ko li ngay lekk di ko <clears throat> ko jëfandikoo moom itam baax na ci lool ci xeeti góom yu dëgër bopp yooyu góom yu yooyu ba ci xobi karasol boo amee xobi karasol ak xobi nebalaay ak xobi lëng xobi karasul ak xobi nebadaay ak xobi lëng boo leen baxal ko léegi di ko naan segg ba mu set di ko naan saa yu lekki moom baax la lool da koy sawar ba ci lu ñuy wax mbal ñax boobu ñuy wax mbal noonu mbal soo ko amee xobi moom itam baxal ndox sotti ko ci moom di naan su dëgg la war rek sotti ci litre ndox di ko naan saa yu lekki naan ci kaas moom itam baax na ci lool surtout bi métti métti yooyu ci la gën a gaaw da koy saafara kon lii tënk ci rek ndax te bëri luñ koy laaj ci lu sonnale lool mel ni daanaka ñaar ak ñett ñoo gis ñett ñoo gis dafa mel ni ñaar ñoom la ñu jàmbat euh, yal na boole defal tawfiix baax na jërëjëf